asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu Euh, di wax man seen jub responsable politique de l'Alliance pour la République à Thiès nekk itam candidat à la mairie de Thiès Ouest maa ñëwoon tey di nuyu waa Thiès di waxtaan ak ñoom ci mbirum feebar bi nga xam ne moo ngi sonal waa àdduna ñu koy wax coronavirus Covid euh, di dellusiwaat tey di insister sur le port des masques ndax euh, jàngoro bi na fa nga xam ne tey jii nii li ñu ci mun a génne rek moom mooy port de masques port masque bi dafa nekk nag la nga xam ne euh, ci sama gis-gis Sénégal yi dañ ko dañ ko dañ ko joxuñu ko joxuñu ko gëdd joxuñu ko fulla joxuñu ko joxuñu ko matuwaay joxu matuwaay bu war feebar bi war fee mën a jige ndax euh, fi ñu toll ci ci feebar bi actuellement boo demee ci dëkk bu mel ni Pékin wala Wuhan bi nga xam ne fa la feebar bi juddoo ñoom ñoo ngi commencé waat petit à petit dox seen activité mais li leen may loolu moom mooy dëkk bi amul kenn kuy dox te takkuloo masque ministère de la santé insisté na ci tous les professionnels de la santé ñu ngi ciy insisté pour ñu mën a takk masque ndax loolu moom mooy tax ji jii nii du yegg ci confinement général mais bu fekkee itam takkuñu masque ba pare bëgg tout le temps di dox suñu soxla mais dañuy dem. te ña euh, feebar bi di gën di law dañuy obligé yegg ci confinement général dañuy ñaan yàlla yàlla ci yàlla musal moo tax may ñaaxaat sénégal yi ñaaxaat askan bi ñaaxaat population Thiès ñu utiliser les masques masques yi nag ñun yàlla def na alhamdulilah am nañ ay masques yi nga xam ne ñoo ngi koy baaxee les responsables yi nga xam ne ñoo nekk ci zone bi c'est des masques réutilisables maanaam du masque booy sànni mun nga ko jëfandikoo ñaan ñetti fan ñu tilim ñu continuer waat di ko utiliser fii ba feebar bi di fi jógee kon ñuy insister ci nit ñi vraiment ñu utiliser masque yi un peu partout ci suñu secteur bi joxe nañu ay responsable politique ñu jox ñu ñu takk masque yi ah incha allahu ñu ko kattan bi ak doole bi may dañ ko gën a continuer di utiliser masque yi mu koy jëlee feebar bi. alors <coughs> mu mel ni toujours euh, ginnaaw rek euh, masque yi mooy euh, ndaje yi. daal di koy dakkal ci biir euh, dëkk bi ak tamit saafonte bi ak euh, ndox ak eau ay gel ak inimal ci wàllu sensibilisation. waa loolu itam am na ci solo ndax euh, ñun dañoo nekk population sénégalaise dafa nekk population ba nga xam ne vraiment dañu bëri ay jotaay dañuy bëri dañoo mën a saafonte nit dina nuyu sax nga rus ko jox ko loxo fekk bëggu ko woon jox loxo mais xëy na li la ci li la ci musal après moom mooy bu fekkee yor nga benn butéelu gel. nga jël ko raayoo ko bu fekkee microbe bi moo ngi woon sa loxo microbe bi microbe bi a mën a mën a dëj moo tax gel bi am na ci solo et puis fépp fu ñu dugg ñu raxas loxo yi ba mu set ak saabu ñu moytu lu ñu mën a moytu lu ñu mën a gën a moytu joxe loxo nag ñu moytu ko bu fekkee nag mënuñu mënuñu ko bañ a def ndax rus nit ki boo ko defee ba pare nga jël gel bi utiliser ko diwoo ko euh, bu ko defee yàlla mën a dinañu mën a musal ci feebar bi nga xam ne mu di coronavirus bi nga xam ne moo ngi law alors euh, très bien ban message ngay lancé. Euh, message bi may lancé moom mooy vraiment ñu gën a góorgóorlu surtout fii ci biir Thiès ndax yàlla may nañu euh, je pense ñu def 2 à trois jours te avec zéro cas fii ci biir Thiès cela veut dire que kon mesure fi jël ah moo ngi porté ses résultats mais itam ba mu tax mu nañ gën a vraiment gën a takk ndigli gën a gën a ak feebar bi. du caagee ne toog nañ quelques jours amuñu cas rek que ni affaire bi jóge na fi non banque ba léegi nañ gënoon renforcé renforcer yi nga xam ni ministère de la santé joxe wax na ko mooy lan ñu moytu joxe loxo yi di raxasoo ak saabu di jëfandikoo gel mais itam di takk maski yi yaakaar naa maski bu ñu koy takk di ko respecté dinañ mën a sax dox suñuy soxla te suñuy activité dinañ ko mën a ndax itam bu ñu waxante dëgg dina jafe lool. nit ñi toog seen biir kër te amuñu lu ñu dundee ku xëy da nga wuti loo dundee mais na bu fekkee yaa ngi dem te utiliser masque bi nga xam ne vraiment euh, njëg li demeewul noonu 500 francs am na sax yu jar ay trois 300 francs yàlla mën na ñëw musal ci feebar bi ñu jóge fii une bonne fois pour toutes di sant bu baax ñi ma àndaloon ci reportage bi ñu nekk ay responsable ci biir zone bi ku ci mel ni Ibrahima Sarr euh, Sané Saliou Sané ak Mouhamadou Bakhtar suma HLM Dakar di leen sant bu baax ñu jàpp luñ ci liggéey bu baax ci tasaare masque yi ak di leen jaajëfal merci beaucoup